incha allah dina am le 17 novembre 2024. Euh, Sénégalais tànn ku ñu mën a tànn. Euh, démb danoo gis euh, coalition Diao 2024. bu ma mooy Diao ni dafay soutenir lii di Pastef ci élection législative yi. Mhm. tey ma gis ay xibaar nu bind Ousmane Sonko tient son premier transhumant. jàppale nit ci élection. loolu transhumance la wala nu mu demee noonu. waaw loolu mooy maanaam ceux qui sont dans la manipulation ñooy def loolu parce que <laughs> maa ngi gis ñeen ñu gaawantu dem bind Mame Boye Diao rejoint Pastef mhm. léegi loolu soo ko déggee nga jàpp ne euh, lii kat transhumance la mooy ñoom euh, dañoo tàmbale di jël ñi bokk ci président Macky Sall wala ñu jógee APR. Mhm. di leen dugal ci biir seen parti alors que li xew bokkul ak loolu dara. déedéet mais si la man mi toog sama kër. Mhm. toog añ ba suur xool ba mu neex ma ma ne man je soutiens la coalition rond ku ci mën dara. kenn yow yaa moom sa soutien yaa yor sa parti wala yaa yor sa coalition. Mhm. nga xool ab coalition ba neex la nga ne ñun diw la ñuy soutenir waaw mais loolu ban engagement la ci coalition boobu am. Mhm. léegi am na ñoo xam ne ils veulent nous faire croire que moom Mame Boye Diao dafa rejoindre le parti Pastef. Mhm. parce que bu ñu fàttali ko Pastef actuellement et foofu la jeu de mots bi nekk fa la gars yi di di def manipulation bi. mooy Pastef c'est un parti mais coalition Yewwi Askan Wi dafa war dem ci élection yi ci bannière Pastef. coalition Diomaye président waaw Diomaye président moo war a dem ci bannière Pastef waa waaw léegi actuellement bu fekkee mbir yi foofu la toll. Mhm. soo bëggee def jeu de pour diir que euh, soo nee Mame Boye Diao rejoint c' est comme si Mame Boye dafa rejoindre li nga xam ne moom moo di parti Pastef. Mhm. et je pense que loolu c' est faux li xew mooy moom ci coobare boppam xanaa Macky Sall sax bu ko neexee mu toog ba heure bu ko neex mu ne je soutiens gis naa si ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne nee nañ. Euh, coalition. Macky Sall soutien lan bu ko neexee mu toog ba si ba mu neex ko mu ne Macky Sall soutien coalition Diomaye président c'est pas la responsabilité de Diomaye président wala Pastef. Eh. yaa moom sa bopp nga xool ba mu neex la nga ne ñii laa soutenir. Mm-hmm. loolu kay sa. ah loolu moom ça n'engage que léegi nag. di assimiler loolu ak lu mel ni transhumance. loolu mhm. te je pense que nit ju nekk de de mauvaise foi ñoom ñoo ko bëgg a def. Mhm. pour dire voilà gis ngeen gars yi ñoom ñëpp a yem transhumance nguur gu ñëw bu bees bu ñëwee gars yi dañuy dem bokk fële ak yu demee noonu. eh mhm. Mame Boye Diao je pense que bu fekkee ni. amul dara lu luñ ko war a toppee ci koppar. bu fekkee ni moom amul dara loo xam ne ci yorin bu ñaaw amul luñ ko si toppee mais c'est un sénégalais comme sénégalais yëpp. mais mais moom waroon parti parce que je pense que si base boobu noonu amul dara lu ñu ko war a mën a toppee. mais mais moom Sonko aussi mosuñu am benn problème. oui mais. Mhm. dans le cadre de la reddition des comptes wala leneen ak leneen lu ñu la war a toppee. su fekkee ne am na lu mu laalee ak loolu pour man foofu la problème bi di nekkee. Mhm. mais bu fekkee ne c'est quelqu'un boo xam ne. surtout ko jiite woon impôt voilà loxoom set na amul dara lu ñu ko war a toppee. bon je trouve pas de problème à ce que. Mhm. Euh, mu tout comme euh, un un Touré bu dem rejoindre coalition boobee. Mhm. gisuma lu tere moom mu dem sax eh, dugg si lu mel ni parti Pastef. exactement alors Momo dañuy euh, waxtaanee. tukki bi nga xam ne allez-y bu fekkee ne daf say laale. Hmm. je soutiens Pastef génnew la si de. <laughs> ay toog rek je soutiens Pastef nii après ñu ne non garaawul c'est xaw ma je sais pas xaw ma ndax laale na wala laalewul gis naa fan yi sax ñu commencé def ay liste ba dugal ko si. Hmm. Mhm. je soutiens Pastef génnewu la si affaire yi de ah du noonu ah. Euh, bi président Bassirou ñu ñëpp a teewlu nañu discours bi nga xam ni euh, def na ko fële ca euh, nation fële ci ONU. tey jii mhm. nan nga mën jàngatee discours bi nga xam ni son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yëkkati na ko foofu. oui discours bu bu bu bu extraordinaire soo koy seetaan tu es tu fier